seetaan sans doute li xew euh, fële ca assemblée générale bu Nations Unies les Sénégalais qui se donnent un en en spectacle euh, les images sont sont virales euh, l'hôtel du président assailli attaqué par des Sénégalais mécontents mécontents ci sort bi nga xam ne euh, moom la ñu réservé euh, kii di Ousmane Sonko images yooyu lan la la inspiré comme commentaire. jërëjëf Maymouna maa ngi lay gërëm di la sant ci émission bi di nuyu sa téléspectateur yëpp di ñaan yàlla tamit ñu commencé ko bisimilahi rahmaani rahim terminé ko alhamdulilahi rabil alamina euh, image yooyu ñu wone ci visitu président la république mu ko def ko états image yoo xam ni du kon mënul neex benn sénégalais parce que néewalu ñu doole président Macky Sall parce que yàlla moo ko yëkkati ba pare def ko président de la République contestation fi lañ ko fekk ci démocratie la ñu nekk am na yu ma ci jot a déglu bu ñu ma envoyé ruus naa sax di ko nettali parce que du yàgg du teggin bu fekkee loolu mooy politique wax fa dëgg neex yàlla man jànguma boobu politique tàggatuñu ma ci boobu politique façon la boo xam ne bi daal mënoon nañ ko éviter te du tere ku nekk taxaw wax say conviction parce que débat d'idée la du insulte du invective li ma ci gën dégg li ma ci jot a dégg nag wax fa dëgg neex yàlla je préfère en faire l'économie